comme niñ nga ko ci sen seen ben reportage ñoo ngi ci ba légui ni ci sen reportage Sadio bon ñu doxantu beeg ci fi ci nga xam ne mooy kër euh, Serigne Aliou silla opérateur économique en même temps responsable politique à père fils Mbadiana ñu jox ko kàddu gi mu présenter ñu dugg ci biir waxtaan wi. bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah rabil alamin arrahmaani rahim maliki yawmiddin diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqim siraatal ladzina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin barke barke yonent bi saa salaam waaw man laa lii si la Touba Madiana marché ogas commerçant. Allah ñu gis ne que en tant que responsable politique ak père de famille naka nga dundee tamxarit yi nga xam ne moom tamxarit gi sëñ Bakke ñu ngi nii bokki Touba bokki département bi yëpp waaw niñ ko dundee comme niñ ko daa dund rek fas yéene doon jaamu yàlla. fas yéen yi tamit feddali sunna yi noonu rek lañ ko dundee bëgg tamit comme niñ ko daan waxee rek bëggal suñu njaboot fexe ba comme niñ ko daan waxee rek li ñuy wax naa ku wégu ren boo regatee déwén la xam na loolu waxee wolof la waaye taxawaay yooyu yëpp daal ñu ko am pour bëgg suñu njaboot beeg niñ ko daan defee rek. jërëjëf ba ñu ngi sant bu baax di gërëm waaw waajkaay yi ñun mën naa wax ni la bañ ko taxawalee rek mën naa ni la booba la sotti woon taxawaay biñ ci tolli woon comme liñ ñu jotoon a jox ci ci ci ci liñ ko doon waajale ñun yaakaar naa bañ na ko joxee lañ ci pare woon li ci des kay xanaa bëgg gën góor góorgóorlu xam ba xam rek natt suñ doolee ba xam fan la toll waaye liñ ñu joxoon pour defloo ñu ko bañ ñu ko joxee loolu la pare woon booba. xale yu nga xam ne ñu am ko jëmale sa kaw xam nga kàddu yu ñu yëkkati te xamaguma kàddu yooyu yu mu doon du ma ko mën a tontu boo ma ko leeralee mën naa cee tontu ndax bàyyi la moom li mu xam mooy liggéey ak jaamu yàlla ak dimbali képp ko nga ne moo la tane. ñu gis bërki dem bi ngeen def seen lancement parrainage fii ci Touba am ñu xam ne teewluñu woon ñu gis yeneen déclaration yu lancé seen parrainage te bokk ci même parti bi te ñu woote unité ngir jàppale président Macky Sall. waaw ñun biñ koy def nii fii man ñi teew ñi teewul wax dëgg xàmmeewuma loon woon xàmmeewuma leen ndax tamit xëy na gone yi lañ yebaloon ñu ne woon responsable yi ñoom dañuy toog kenn ko ne da nga yebal say ndaw moo tax man ña fa teew ak teew ñu fa xawma ko en tout cas bi ñu wootee daal woote ci yoonu Mbàkke ñun responsable yi ñi ci ëppoon teew nañ ci ñi xamoon ci ñi yëngu ci APR ku bëgg a ànd ci leen doon def Euh, ku teew ku teewul nag booba man wax dëgg yàlla gis naa ni ñëpp teew na euh, ñoom nag bu ñu àndaatee ànd ñoom gone yi ndaw yi ni dañuy ñëw séddale papier yi man wax dëgg teewuma foon ba xam waaw. ñu gis Abdoulaye Ka di yëngu ngir jàppale président président Macky Sall opposition bi di ko song di ko wax ne ko da ngay jënd achat de conscience da ngay jënd xel loolu xam nga man mënuma cee sori man dama bëgg daal kuy jàpp kuy jàppale président nga way ci dégg nga waaye bu la neexee nga yàpp bu la neexee nga bàyyit man xamee wu ma parti noonu man dama bëgg parti bi bu fekkee dafa yëkkati rek am lu mu soxla ñu xam ni parti bee soxla lu mu doon lu ne rek boo ca bokkee boo ca bokkul nga taxaw pour jàppale parti bi waaye bu la neexee nga jàppale ko bu la neexee nga bàyyi ko ñun tamit loolu xamuñu ko sax ci politique nag. bàyyi la ñu gis la ci tabaski nga def action sociale bu xam ne waa Médiyane yëpp ñu ngi koy soow ana tamxarit gi loo loo loo dàbbale. xam nga nag moom li li ci ëpp ci suñuy dëkkandoo du man maay def mais sama njaboot taxaw nañ def lu nga xam ni yaakaar naa tamit lu mat sëkk la mboolem kuñ dendal rek def nañ daal suñu kéem kàttan man ci waayas waaye nag fekk naa ñu def nañ lu mat sëkk daal ñun ci social daal la ñuy dox bu fi nekkee mi ngi dox bu ma fi nekkuti wax dëgg sama njaboot ñi ngi jéem seen kéem kàttan sa sëriñ sa xarit sëriñ Modou Mbacke di woote unité ngir ko ñu mën a falaat président Macky Sall ana ban message nga xaaruma ay unité ak ñàkk unité parce que fii man li ma gis ñuy woote unité mooy man xawma ko ci politique man politique dama xam bëgg li ma bëgg ñu xam ko mooy responsable bu ne mu taxaw ci terrain bi def lu ñu gis ni lii mooy tax président falu waaye di woote unité te taxawoo ci say militant la ñu war a am ñu am ko man xawma ko man li ma xam bala ngay woote unité dangay taxaw ci askan bi militant yi ñu bañ a xeemeem fenn nga taxaw leen ñu ngi lay gis jamono ju ne man loolu laa xam ci ci ci politique. ba lañu gis la fan yépp ngay yëkkati ci dernière sortie médiatique yi nga def ak presse bi di wane nag ne di gëdd bi la war a jox fii ci département bi ngir nga liggéeyal président Macky Sall xaw naa des waaw loolu man li tax ma di ko wax dama gis nag comme li demee nii rek ñi ci bari dañuy nax président ndax dañuy toog fañ toog rek ba élection jub ñu yaakaar ne moyen mu ngi génn rek kenn ku ne jóg di yëngu ci barab ñun li ma lay wax rek xamuñu ci politique loolu politique da nga war a téye say militant pour toujours soxlay soxlay tubaa ci militant dafa bari dama la wax ne la daje ngi fi ngéntee ngi fi lépp a ngi fi tudd doom a ngi fi mais boo toogee ba nga toog fa nga toog boo toppatoo loolu ba toppatoo loolu ba élection jug rek nga taxaw ni man damay nekk responsable damay jàppale Macky Sall da koy jàppale avant dara di xew fexe ba eh, ñi ngay jàppale seen xel nekk ci ni bu àggee ci mbir moomu war nañ laa jàppale mais boo toogee ba ni kët di jonn rek xaalis rek ñëw tax ngay ñëw di jëkkante ak nañ def nit man xaw ma loolu man dama dëkk fii fas yéene nekk ci samay militant fas yéene bu ñu geesoo rek gis ma li seen bët xong te ma man ko rek ma jàpp ca te militants yi nga message nga leen bi mooy comme li ma leen wax kenn ku ne yaa ngi natt sa bopp rek xam fan nga toll ci ci ci ci nit ñi ci loolu boobu message rek laa leen di jox man bëriwuma nag lu may forcer kenn ci ci parrainage ku xool xam ba la xam ni bëgg ngaa ànd ak moom man daal maa ngi Tuubaa génnuma mais nag fii dañuy natt kenn ku ne daal war ngaa xam ki ngay àndal kan la. ndax tamit dañu fasiyene yéene dëkk Touba te fasiyene yéene wuñ ko gaaw a kon nak kuy andal rek war nga xol ki ngay andal ak na ngeen di andé na rafet dal man ci rafet rek lay dox ñi me parané it amna ci ñom yaakar tax ñoo ñëwal seen bop signé jëluma photocopie jëluma leneen kon man yaakar rek lay am ci ñom loolu it la leen di soñi bu leen kenn nax bu kenn jëne seen conscience nañu fexé ba ñi doon andal wala ñi di ñi fajj seen soxla buñu gisut kenn ñoo ñu fexé and ak ñoo kenn ko ne nag yaay xool ki la neex rek man forcé wu ma ci kenn daal mais wax dëgg yàlla li li doon sama sabab daal ci ci parrainage yi bañ ma ko joxee la ma toon waaye kenn ku ne dangay natt rek ak ñi la ñi nga war a àndal ñooñu rek la ñuy seet ba xam. sant ñëpp di leen gërëm équipe biir maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax lii bokk na ci politique fi nga toll léeg leen nga di ko leeral kon sant naa leen ci baax gërëm leen jërë ngeen jëf.